barhaamu baa un waraa un alifun thumma haa mi mun jox ñu ñuy naan. aaya muy aayatul kursi yonent wax na ne képp ko sax ci jàng aayatul kursi yu gannaaw julli gu nekk dara du dox sa digganteeg àjjana lu may dee. wax na ne boo demee booy tëdd ci salal nga jàng ayatul kursi yu yàlla dana la wattu ci seytaane wattu ku nekk ak yow ci néeg wattu sax néeg yi nga xam ne kër yi nga xam ne ñu nga la wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bàyyoon eh, sarax ci loxo abu hurayrata muy koy denc ba guddi jotee am sàcc bu ñëw pour sàcc abu hurayrata jàpp ko mu ne ko maa ngi lay lentulu ci yàlla ba ma dootuma del siyaat abu hurayrata ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wasallam suba ba mu ak seere yonent bi ne ko yow abu hurayrata nu sa jar-jar ba def nu sa waaja def mu ne ko ndax maa defal ne dootu del si yonent bi ne ko waaye dana del si ci guddi ñaareel gi abu hurayrata gémentu sàcc ba del bam ba bëggee jël ci sarax tàndarma ji abu hurayrata jàpp ko mu ne ko yow dang maa joxoon defal ne dootu ñëwaat léegi nga ñëwaat mu ne ko jéggal ma rek ba ma dootuma delsi mu bàyyi ko ba mu xëyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko abu hurayrata nu sa jar jaar ba def mu ne ko fa maa defal ne dootu delsi yonent bi ne ko dana delsi juddi ñetteel bi mu delsiwaat ba mu commencé ñëw di tibbu bëgg a sàcc Abu Hurayra sa japp ko ne ko yow yow huruj kan nga bët bu set nga joxe ko leer go xamne do ko sam ne do del ci sa da nga del siyaat mu ne ko jéggal ma rek danaa la xamal lo xamne boko waxe boko waxee rek yalla musal ci seytaane mu ne ko lol lan la mu ne ko ayatul kursi bam xeye mu ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nu sa jar-jar ba def mu ne ko daf ma xamal dara ne loo xam ne bu ma ko jàngee njëkk may nelaw yàlla wattuma ci seytaane moom mooy ayati kursi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa na la dëgg waaye dafay fen dafay fen gi mooy moom bu gëmoon yàlla gëm ak gu toll noonu moom du def lam yi def noonu fen danañ ko wax ci loo xam ne nii duut ne lu xuuteeg lu xam la waaye danañ ko wax ngir xuuteeg li nga gëm إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لين واخ دغلا يالا ني دغلا با بار يالا ني فين موي نيوم لين واخ گمون گيتيم بو گمون لي موي واخ آيات الكرسي گم لولو كون دانا توپ دانا توپ يالا كون دو دو ساتي ولا بو ديمي با ديف كو بن يون كولري نيات يون گاي جوخه كولري ديكو فيتي كو كاي كو گم يالا دوكو ديف bàyyi nag ku tudd jàng ayat kursi ci aajo ñetti téeméer ak fukk ak ñett limi adadu rusuli adadu jeesh ahli badrin yàlla dana faj sa aajo aajo ju mën a nekk ku fa jàng juróom fukki yoon njëkk ngay tëdd yàlla dana la musal ci jinne tudd nañ ci ay ngëneel moom ayat kursi ngëneel yu bëree bëree bëri dañuy wax ne dama am waay joo xam ne dañ ko waxoon ne ko ayat kursi daal boo ko jàngee sa bi ñetti téeméer ak fukk ak ñett rek sàcc du fa dugg dara du fa dugg moom xamul sax ayatu kursi muy xëy rek di wax ayatu kursi ayatu kursi ayatu kursi am ku ñëw bugg sàcc bitig bi mënta ak ci bitig bi ñu koy laaj ne ko yow loo doon jàng mu ne ayatu kursi ne ayatu kursi lan la mu ne ayatu kursi ayatu kursi pas-pas baa ko dimbale laa ikraha déet fi diini ci diine wax leen